salaamaaleykum mbokk internet yi ñuy bàyyi xel ci sene info point net euh, wante itam seen seen youtube am solo bi di sene info international euh, ñu ngi leen di nuyu euh, tey nag ñu fas yéene seq waxtaan ak ki nga xam ne moom mooy Serigne Abo Thiam moom nag jeune responsable politique la ci Grand Yoff bokk ci wàllu Sénégal ñu investir ko ci liste départementale coalition Yewwi Askan Wi ñu fas yéene waxtaan ak kon ay koñ yoo xam ne rek day jëm ci li nga xam ne moom mooy euh, élection législative yi euh, euh, Serigne Abo ñu ngi lay nuyu. Eh, maa ngi nuyu Coumba Ndoffène di nuyu mbokk internet yu Sene Info yi fépp nekk ci biir Sénégal ak ci biir bitim réew. Mm-hmm. Serigne bu njëkk rek fi mu nekk nii daanaka ñu si cappaandaw li nga xam ne moom mooy campagne électorale bi ñeenti fan rek moo ci desati ana fi mu fi mu nekk nii fi ngeen toll lan mooy seen taxawaay. waaw taxawaay mooy dañuy sant yàlla rek di wax alhamdulilah. parce que commencé nañ li nga xam ne moo nekk campagne électorale bi ci lendemain tabaski bi et ñu ngi ko commencé ak le ak notre tête de liste le maire Barthélémy Diaz ñu dem seeti yenn kilifa diine yi ku ci mel ni euh, le cardinal ak l'archevêque ak Serigne Maodo Sy Dabakh la famille omarienne ak la famille Layène ak mission libanaise bi nga xam ne ñoo nekk fii fii Sénégal ñu dem seeti leen wax leen suñu yéene ak bëgg-bëgg ci assemblée nationale bi ñu jëm bi ñu fa jógee dem nañ seeti ñi nga xam ni moo moo nekk Dakar waaye ci seen commune yu ñu nekk presque la majeure partie des commune def nañ ko dem wax ak ñoom ci li nga xam ne moo nekk suñu bëgg-bëgg ak ci li nga xam ne moo nekk suñu programme par rapport ak élection législative yi ñu jëm léegi nag ñu ngi ci dernier virage bi dañuy jéem a def communes yi nga xam ne yegg ko ñu xool nan la def ba yegg fa balaa vendredi et que fépp foo xam ne dem nañ fa en ce moment positif li ci des mooy ñaan yàlla mu mottali ndax fu ñu dem euh, population bi génn nañu accueillir ñu wane seen cofeel ci li nga xam ne moo nekk li si yeewee askan wi nga xam ne moo nekk département bu Dakar donc loolu ñu ci am satisfaction di ci am li nga xam ne moo nekk mbégte ci nit ñi accueillir ci nit ñu dalalee pour wane ci am na da ngay dem ci yenn zone sax dañ leen dañu naan bu leen campagne dem leen ngeen toog parce que ici on va voter yeewee askan wi mais loolu yëpp teewul dañuy continuer mënee la campagne surtout ci dernier village yi pour mën a waxtaan ak pour expliquer leen le vote nan lay demee parce que nous sommes en intercoalition mais aussi wax ak ñi nga xam ne mooy les primo a dem le J le 31 juillet a voter li nga xam ne moo nekk euh, programme que mu ngi ñëwalaat ci euh, mooy euh, programme bi mën naa am nag du fi xëj mais boo ñu mënee ñëw sax si tënk sax ci li gën a am solo ci boobu la. waaw ci li ci gën a am solo rek ci li ci mën a wax mooy que ni bëgg nañu rupture. bëgg na li nga xam ne moo fi amoon mu bañ fee amati assemblée boo xam ne député yëpp fay nekk dañuy nekk des députés du peuple nekk des députés dignes yoo xam ne duñ fa nekk di xuloo di saaga ak xeex mais aussi bëgg nañu revoir les accords yi nga xam ne le président Macky Sall signé ne ko ak li nga xam ne moo nekk tubaab yi te ñi nga xam ne mooy sénégalais yi gisuñu ci seen bopp bëgg nañ aussi ci wàllu foncier bi am ci benn taxawaay parce que gis nañ problème foncier bi ni mu sonalee li nga xam ne moo nekk li moo nekk euh, euh, euh, surtout Dakar waaye ndax à Grand Yoff rek tey y' quarante familles yoo xam ne gars yi da leen bëgg a génnee ci benn nit bu ñëw ne moom moo am titre foncier alors que am na ay réformes yu ñu defoon pour que ñi jëndoon terrain yi mën a am seen këyit mën a am ay titre foncier loolu aussi bëgg nañ cee am li nga xam ne loolu moo loolu moo nekk taxawaay ci wàllum éducation bi ci wàllum santé bi lépp bëgg nañ ci waxtaan ak acteurs yi parce que bëggatuñu santé boo xam ne budget de fonctionnement lay am du am budget de d' investissement xam nañ suñu hôpitaux yi nga xam ne mooy nekk fonctionnement bi mooy poser donc bëgg nañ aussi ci wàllum dund gu cher gi par rapport ak taxes yi nga xam ne euh, gars yi dañ koy teg ci yenn produits yi di yokk dund gi yooyu yëpp bëgg nañ cee am li nga xam ne moo nekk taxawaay am xam ne nekk biir assemblée nationale di saytu li moom la gouvernement bi di def muy contrôler l' action du gouvernement et faire des propositions yoo xam ne ci askan wi lay dellusiwaat askan wi ñoom ñoo ci mën a gis seen bopp donc loolu yëpp bokk na ci programme bi nga xam ne am nañ ko ci quatorzième législature bi ñu jëm tey boo xayma liggéeyu treizième euh, législature euh, bi ñuy génn nii euh, ana lan nga si wax ak bu dee it lan nga bëgg moo xam ne mooy soppeeku ci li nga xam mooy quatorzième législature. soppeeku bi li ñu ciy wax mooy xuloo bi xeex bi ak saaga bi dafa bëri ci treizième législature bi passé ay député yi taxaw ne man député Dioura alors que askan wi ñoo leen fa yóbbu bu fekkee opposition bi dafa ñëw def une proposition de loi des députés de l' opposition en commission ñu boole ko. pour mu bañ a jàll su fekkee yow da nga am majorité di néewal minorité tey minorité bu taxawee ci di wax ñu koy yuuxoo di ko chayité di ko alors que sur deux cent propositions de loi quinze propositions sur deux cent lois yoo xam ne def nañ ko assemblée nationale quinze moo ci jóge moo ci nekk proposition de loi li si yëpp ay projet de loi la jóge ci gouvernement bi alors que tey jii député yi tey war nañ di mën a def ay proposition de loi gis nañ li nga ñu xëy lan la ñu wax président de la République nee na moom mënatu ci alors que ñoom bi est-ce que koy voté def mettre nañ leen les conditions qu'il faut ba pare dajale nga xam ne moo nekk acteurs yi ngir bi mën a yomb ils ne l'ont pas fait tey am nañu blocage bëggatuñu gis tamit assemblée boo xam ne treizième législative bi ay député yi trafiqué foofu bii ak la askan wi jox yëpp leen foofu nekkal leen fa ñu jël seen lépp jox la ko sur ñu tànn la la yow na représenté 17 millions assemblée ngay dem def trafiqué di trafiqué ay faux bëggatuñu gis assemblée ki li ngay waxatee député yoo xam ne jaay ay passeport diplomatique bu tayee nga ne kii mooy sama soxna bu subaa kële mooy sama soxna donc bëri na ci treizième législature koy génn taxawaay boo xam ne dafay tilimal démocratie sénégalaise dafay tilimal image yu li nga xam ne moo nekk Sénégal moom loolu moo tax bëgg na ci andi rupture par rapport ak quatorzième législature bi ngir ngir am une assemblée du peuple et non une la solde d'un régime. am na Sénégal ñi fi mos a jaar yëpp. bokk na ci seen président. <laughs> Abdoulaye Wade bu nekkee ci euh, pouvoir bi tam euh, yor majorité assemblée bi daanaka doxalin noonu lay demee. Uh-huh. léegi lan nga yaakaar ne peut-être acte yoo xam ne xaw ma dañ koy noo xam ne dañ koy ba rupture bi am carrément bu ëllëg it keneen ku mënti ñëw it euh, mbir yi dootul mel noonu quoi. loolu bu ñu ko am il faut il faut une cohabitation c'est-à-dire ba ñu jël benn les tous les pouvoirs concentrés ko autour d'une seule personne boo xoolee de Senghor à Diouf Wade. en passant par Macky Sall loolu moo mës a am benn nit mooy am une majorité à l'Assemblée nationale une majorité mécanique am say député ñuy décider ñoom ñu leen neexee alors que tey si on a la cohabitation c'est-à-dire ñu am une séparation nette des pouvoirs am des députés yoo xam ne dañuy jël seen pouvoir bi ñu moom muy législatif doxal ko di contrôler action du gouvernement faire des proposition de loi def évaluation am exécutif boo xam ni dafay nekk jël pouvoir am doxalee ko nu mu mat am légis judiciaire xam ne day jël pouvoir donc loolu moo tax cette fois-ci ñu ne pour ñi nga xam ne ñu ngi koy ñu ngi koy gis depuis pour loolu mën a jeex il faut que ñu am cohabitation mooy que ñu am député yoo xam ni du ci pouvoir la ñuy du ci exécutif bi moo leen di def loo ñuy def mooy tey day permettre aussi ëllëg lépp lu ñu war a def ci biir réew mi exécutif ak législatif dañuy mën a waxtaan ba mën a déggoo ba askan wi mën cee gis li nga xam ne moo nekk seen bopp comme ça dinañu permettre ñu mën a am ay député du que tey si l'opposition à la majorité à l' assemblée nationale dinañ am cohabitation dinañ taxaw taxawaay boo xam ne askan wi dinañ ci mën a am gis seen bopp ndax ëllëg ñun tamit dañu war a dem laaji li nga xam ne moo nekk le pouvoir exécutif donc am na taxawaay boo xam ne buñ ko amee ëllëg askan wi dina mën a am ci ñun confiance ba xam ne suñu dénkee li nga xam ne moo nekk exécutif bi liñ war a def dinañ ko def. gis ne seen euh, coalition bi muy wàllu euh, ak euh, Yewwi intercoalition sax laay wax ñaari coalition yu àndaat am nañu gis ne peut-être ay intérêt moo ko lal. donc ay benn coalition de circonstances ak yi ni mel ñi am xalaat boobu loo leen di waaw xam nga mooy ñooy mooy mooy ñi nga xam ne ñoom dañoo dañoo bañ opposition bi ànd te bu opposition bi ànd ñoom nee na yaakaar ñu ngi ànd et que cri de cœur sénégalais la woon ñu ci ëpp wax que ni il faut une opposition unie ànd boole seeni doole même si on ne peut tout le monde ci benn coalition. et on a vu que ñu génnee ci élection local yi la coalition Yewwi Askan Wi s'est retrouvée avec 700. Euh, et quelques mille voix c'était une très grande coalition la coalition Wallu Sénégal c'était le PDS seul i on s'est retrouvé avec 450 000 voix et nous avons dit que les 700 000 voix ak 450 000 voix boo xoolee dans le départements fu ñaari Wallu ak Yewwi àndee dañuy am li nga xam ne mooy majorité ci kaw Benno Bokk Yaakaar moo tax ñu ne nag au lieu que ñuy divers ñuy jël suñu voix di ko tàqale et que askan yu sonn nañ et que pour mun leen a taxaw et que pour mu ngi andi rupture ngir am majorité assemblée nationale ngir am député yoo xam ne askan wi lañ fi nekkal taxaw askan wi il faut que ñu boole suñu doole. loolu sénégalais yi wax loolu lañu dégg ba ñu def coalition au niveau des xam ne tey boo demee ci sur sur 46 départements yi 28 yi bañeeru yeewi askan wi lañ fay voté. Mm-hmm. comme le boo demee sur 18 bañeeru wàllu Sénégal lañ fay. porte moom fa porte bannière moom la ñuy voteel comme Pikine ak Mbacké ak feneen boo demee ci diaspora bi ci 15 yi ñaari bañeer wallu kii la wàllu Sénégal la 13 yi mu ngi nekk bannière li nga xam ne moo nekk Yewwi Askan loolu yëpp dañ ko def fàtte suñu bopp parce que ku ci nekk bu doon sa intérêt bopp la rek na ngay dem defal sa liste bopp ngir am say député bopp ngir dem assemblée nationale mais dañ ne nañu fàtte suñu bopp dem coaliser ngir askan wi leen a taxaw ci assemblée nationale ngir mën leen a génnee ci jafe-jafe yi nga xam ne moom la leen président Macky Sall teg ak li nga xam ne loolu moo nekk régime ak li ñuy gis ci doxalin assemblée. ngeen jàpp ne daal kon euh, coalition boobu ngeen boole seen doole yooyu dina leen permettre ngeen am cohabitation bi nga xam ne moom ngeen bëgg fële ci assemblée. assemblée nationale ngir mën a andi ay coppite ci réew mi ci yenn loi yeeg ci yenn accord yeeg ngir delloowaat Sénégalais yi li nga xam ne moom moo nekk seen moomeel ndax lépp ci assemblée ba lañ koy doxalee fa la ñuy voté la ñuy voté loi yi donc fa la ñuy contrôler action bi fa la évaluation yi di amee lépp foofu lay amee donc il faut que ñu delluwaat loolu askan bi euh, gis nañ ndaw yu bëri ñu mel ni yow ñu investir leen ci li nga xam ne moom mooy liste électorale yi est waaw électorale yu euh, législative yi est loolu day wane ne tey ndaw yi peut être dañoo am beneen taxawaay dañoo jóg ngir euh, jël mbir mi téye mbir mi daal seen ay absolument dañoo jóg ngir jël mbir mi parce que suñu mbir la changement bu am ndaw ñi moo ko porte même bien vrai que ni li ñu gis nañ ni investir nañu ay ndaw mais pour ñun loolu doyul war nañ mën a dem ba mën a am tey trente pour cent ci ay ndaw yoo xam ne dañ leen di investir ci biir assemblée na boo xoolee législature bi passé li fa ëppoon ay mag lañ li fa gënoon nekk ndaw PDS lañ jóge woon mooy Marie Saw Ndiaye ak Toussaint am na ay ndaw yoo xam ne investir na lañ mais bëgg nañ législature wala leneen luy amaat ñu gën a joxaat ndaw ñi li nga xam ne moo nekk seen place parce que po parce parce que dëkk pour mu mën a développer pour ñu mën ko yóbbu ndaw ñi ak jigéen ñi rek ñoom ñoo ko mën donc bu fekkee joxuñu ndaw ñi seen place bi nga xam ne moom la ñu mérité dans une société société boobu noonu dafay gën a dellu gannaaw moo tax nag ñu ndaw ñi dinañ taxaw ma jël li nga xam ne moo nekk suñu place feesee ko te c'est l'occasion pour dire que ni jeunes yi nga xam ne tey investir nañ leen ci liste pour ñu war a dem assemblée nationale euh, l'occasion nous est donnée pour ñi nga xam ne ñoo nekk suñuy kilifa que ni ñun ndaw ñi na taxawaay boo xam ne bu exemplaire lay nekk assemblée nationale ba su ba bu leneen amaatee ñu mun a jël ay jeunes suffisamment dugal leen ci liste yi xam ne bu leen yóbbee assemblée li leen fay xaaree ñoom dina ko def. ndaw yooyu ñuy wax it booy xool euh, ñoom ñooy euh, ak u violence bi nga xam ne dañ koy nemmeeku euh, ci souvent ci campagne yi ana ban jàngat ngay parce que à chaque fois dañuy jàppee ay caisse de résonance mooy que tey jii di ñu utiliser bu xeex amee ñu ne dem leen ngeen xeex. ngeen sànnante ay xeer ngeen def nii mais quand il s'agit nag jël ay post wala lenn ñu relégué ñu ko sama plan loolu ndaw ñu ñoom ñoo ko war a bañal seen bopp ay politique ak violence àndul nit ki violence bi ngay def def ko ci ay argument def ko ci idée pour convaincre li nga xam ne moo nekk askan wi ngir mën a andi li nga xam ne moo nekk changement mais benn jeune warul nangu ñu jël la jiital la di la sànniloo ay xeer di la attaqué loo nit wala di la saagaloo nit wala doo ko defee yow joxoo sa bopp respect en tant que jeune mais aussi na ngay tax aussi respect bi ñu war a jox li nga xam ne di lancer appel à la jeunesse que bu nangu kenn nekk xeexkatu kenn ak saagakatu kenn ak jàng nañu am nañu xam-xam moo xam ci école bala moo xam ci métier bala moo xam leneen la donc nañu exploiter loolu mettre ko au service du Sénégal bu ko defee Sénégal mën a am changement parce que jeunesse bi ñoo porté changement bi en 2000 ñoo ko porté en 2012 ñoom ñoo ko porté en 1968 ñoom ñoo ko porté en 88 donc dafa nekk loo xam ne tey jii nii ñoo ko porté en 93 donc ñun génération bi aussi war nañ koo mën a porté ngir bàyyil génération future bii ñëw condition yoo xam ne ñoom bu ñu ñëwee dinañ ci mën a nekk ba moom ñoom mën a xeex ngir yeneen génération yi nga xam ne ñu ngi ñëwaat. sëñ Abo tey euh, lan nga jàpp mooy enjeu élection législative yi d' abord euh, au niveau peut être fi nga dëkk sa gox wala tey tam au niveau national. enjeu bi ci gën a am solo mooy élection yi day tax Sénégal 2024 bi dugg ci guuta ndax xam nañu ki fi nekk dafa bëgg a def troisième candidature te tey s'il a la majorité à l'Assemblée nationale il va forcer dem defi troisième mandat et force forcing boobu muy def lu ne mën na ci judd tey mën na nekk tey jii nii ay bakken tuuru ci parce que gars xam na ni ñu ne peut faire plus de deux mandats consécutifs léegi tey nag pour mun a bañ Sénégal ëllëg ñuy dugg ci ay guuta ñuy dugg ci ay lenn mooy il faut que ñu sanctionner le président Macky Sall ci élection législative yi pour wan ko ne ko kanikat askan wi àndatuñu ak yow ci sa doxalin ak ci sa nekkin bu boobaa 2024 mu jël ay bagages ci jàmm daal di dem su boobaa ni mën a tegaat réew mi ci raay ñi war a bokk bokk ñi warta bokk du ñu bokk ñi war bokk bokk bu ko defee ñu def élection ci jàmm enjeu bi aussi mooy permettre tey delloowaat sénégalais yi du moom ndax bëri na loo xam ne ay accords yoo xam ne tey le président Macky Sall signé na ko jël ko jox ko li nga xam ne moo nekk tubaab yi boo demee ci wàllu pêche beeg ci secteur yu bëri te loolu askan wi gisuñu ci seen bopp ba ci contrat yi nga xam ne signé ñu ko ci wàllu pétrole bi et que suñu ressources nga xam ne mi ngi ñëw tey ëllëg ñu mën a metre en place ay lois yu leer yoo xam ne day permettre lépp dellu si waat ci askan wi askan wi mën cee gis seen bopp donc yooyu bëri na ci nga xam ne moo nekk enjeu que ça soit au niveau communal au niveau départemental au niveau national donc di ci woo askanu Sénégal yëpp ngir le 31 juillet ñu dem accomplir seen devoir et voter pour l'intercoalition Yewwi et Wallu Sénégal. lan mooy nekk sa kàddu gu mujj mooy di la remercier ku ma doon ci invitation bi di remercier aussi internet yi ñu doon déglu yëpp ci seen info di leen wax ne leen le 31 juillet le président Macky Sall moo def exprès jàpp élection yi ci nawet bi et que gis nañ tamit campagne bi bisu tabaski la ko commencé pour faire pour rek se décourager loolu pour wan Sénégalais nit ñi bu ñu décourager moom loolu lay chercher même bisu élection yi buy taw. ak lu mu mënti am nañu yeewu dem fi nga xam ne moo nekk ci ci bureau de vote yi daal di dem voté ji li nga xam ne moo nekk wàllu Sénégal wala yeewi askan yi ci moo xam ci département yi nga xam ne ñoom lañu nekkee ngir mën a am li nga xam ne moo nekk cohabitation ngir mën a am une séparation des pouvoirs ngir askan wi mën a mën leen delloowaat li moom ngir askan wi mën cee gis seen bopp et di wax les primo votants nañu dem jëli ji seen i carte électeurs yi ñi nekk ci commission yi bien vrai que ñu ci bëri ñu ngi dem ci commission yi mais bu ñu laajtee ñu leen seen i carte nekk fi loolu yëpp ay pexe président Macky Sall la bu ñu découragé nañu a accomplir seen euh, lay jaajëfal baax a baax di jaajëfal itam mbokku internautes yi nga xam ne euh, ñu ngi doon euh, bàyyi xel yaakaar naa def nañ ay jàngat yu solo yoo xam ne dina indil njëriñ ñi nga xam ne ñu doon déglu di fàttali rek ne kon responsable politique nga fële ca euh, Grand Yoff euh, bokk ci euh, PDS bokk ci wallu wante itam bokk ci lii di liste départementale bu coalition Yewwi Askan Wi di fàttali rek tamit ne nekkoon nga investi nañ la ci élection locale yi. <laughs> absolument absolument j'étais candidat xam ne mairie Grand Yoff <laughs> baax loolu peut-être législative yi dina nekk bi baax absolument incha allah <laughs> en tout cas ñu ngi lay baax kon di jaajëfal mbokku internautes yi itam di leen jox dig daje lu yàggul dara rek ak beneen invité